fa tabaarakallaahu amuñ ci luñ ci dolli sant rek gën a sant suñu borom ñu boole sëriñ bi di ko gën a santaat nag ci tawféex yii mu may ci sëriñ bi ñu am ñu mel ni ki man koo taxawal liggéeyam bu rëy bii fa tabaarakallaahu sant rek lañ ci def sant sant rek lañ ci def sant nañ ko boole gi boole sëñ bi sant nañ ko sant santaat ko ci tawfiq bi mun may ci barkib sëñ bi ban mën a ban mën a am lu mel ni yéen ñu ko mën a taxawalal taxawal liggéeyam bii sàmmal ko ko na mu na mu ko gën a leen na mu ko bëggee jërë ngeen jëf jërë ngeen jëf xanaa ñaan rek moom gën dinu gën a gàtt nag tawfeex tawfeex sëriñ bi ba lii taxawaay bii di wéy di wéy di wéy di wéy ba bis penc ba alhamdulilah amin di dolli ko rek di gën a di gën di gën di gën a rafet di gën a mat di gën a sell ba bis penc ba rek waaw loolu rek la ñaan jërë ngeen jëf jërëjëf ma tàllal